jamono sëriñ bu xam bu baax lu muy def waaw nit ñaa ngi wax lu gën a ñaaw loolu yàlla yéen a ngi koy dégg te kenn waxu ci dara maa ngi nii maa ngi ci jàmm donc c'est juste pour waxoon leen ne sëriñ bi mu ngi ci jàmm ñi doon wax ne den ma jàpp maa ngi nii maa ngi leen di xamal ne jàppaguñu ma maa ngi leen di xamal ne maa ngi ci jàmm maa ngi nii suma kër Liberté 6 extension falaane ku ñeme di koddal nga bëgg a ñëw ci man ñëwal ci man fii laa yem baay bye jërë ngeen jëf namoon ngeen ma maa leen raw maa leen merci beaucoup les nandité et les nandité sëriñ nante bi mu ngi leen di wax bye baay jàmm rek laayam yem barki sëriñ Bamba ku ma ko yéene ma am ko ku ma ko yéenoon ma am ko ndax man xam naa ne jàmm laa yéene ñëpp I love you haters I love you my fan I love you my babies I love you my daddies c'est que xam nga lu gën a métti mooy nga mere nit ki jéppi ko dem di ko seetaan mu leer na ne kii mu ngi happy sa xol bi day bon après dafay métti après. lii dafa fees. bilaay waale amul morom ndeysaan dañu maam Cheikh Cheikh Ahmed borom ñaari galooy waaw waaw ma ne dama leen di yóbbante ci Pape Diouf ah Pape Diouf ko wax nag génn ci man bu ma wéyati man Wally Seck képp laay topp na ko Pape Diouf yëg Wally rek laay topp waaw ah. eh, beneen bi ci des mooy eh, neexut ba neexut nag mais Wally mën na wéy de

jigi cek ngeen ma dégg jigi radaw gin jigi cek raw cek cek cek gin gin baba incha allah mais xaadim acca eh, du ma la déglu bàyyi naa la waale rek lay topp ah Pape Diouf génnal nag ndeysaan waale rek eh, Pape Diouf yéen mënut a génn sama téléphone bi name, say my name. No one is around you. Say, baby, I love